Eh, nga xamanteni ñom dañuy yëngatu ci lépp lu nit soxla ci biir kërëm rek inshallah allah rabbi ci walu meuble bo fa eh, démé rek di nga fa am seen numéro moom moy affiché noonu ci suuf képp ku bëgg ak ñom rek man nga leena wo inshallah allah mbokk yi comme niñu ko xamé eh, ba ñu ngi ci alquran batay ñu ngi ci yalla subhanahu wa taala batay ñu ngi ci njàngalem yenenbi sallallahu alayhi wa sallam bu ngeen xolé waxtani dafa benn bu nekk jóge nañ ci ñiy xeex alquran ñëw ci ñi nga xamante ni nii foo leen fekk ñu ngi liggéeyal alquran yàlla subhanahu wa taala delluwaat ci ñiy xeex alquranul karim tey nag suñu waxtaan dañuy ñëw ak yéen gaa yi nga xamante ni nii dañoo nekk ci àdduna di def lu leen neex di naan sàngara di njaaloo di sàcc jaamuwuñu yàlla wala sax ñoo xamante ni tuubuñu nangu lu bi sala salaam buñ ko comparé ca jamonoy yéefar ya màkka ñàkk gëm gi ñàkkoon a gëm lan lañu daan wax xam ngeen ci émission bee weesu wax naa leen ni am na wax joo xamante ne nii jamono yeneen tibeeg ña ko jiitu woon daanañ ko wax suñ jamono jiit am na nit ñu koy wax loolu la yàlla subhanahu wa taala ñëw di ñu nettali fii ci alquran ba pare di leen ci tontu mbokk yi te ñu ngi war a commencé aaya cinq te mooy fi yàlla subhanahu wa taala di wax wa qala alladina ashraku law shaa allahu maa abadnaa min duunihi min cheyin nahnu wala aabaa'una wala xaramnaa min duunihi min chey kadalika faala alladina min qablihim fahal ala rusuli illa albalaagul mubiin allahu bar mbokk yi tey laaya ji ci la ñuy taxaw def ci ay jàngat yàlla subhaanahu wa taala nee na bokk na ci li yéefar yi di wax ñiy bokkaale yàlla subhaanahu wa taala di jaamu ay xërëm samp ay kuur ak xeer di jaamu di fa tuur deret di fa tuur am soow jàpp ni yooyu dañ leen di fajak dañ leen di jariñ yàlla subhaanahu wa taala nee na ñooñu ak ñi ngante dañoo samp ay xërëm di leen jaamu nag carrément jàpp ni xërëm gi mooy yàlla sàngam ku bëgg xaalis yàlla jii ngay jaamu ku bëgg takk jabar yàlla ji ngay jaamu ku bëgg tukki bëgg dugg ci commerce yàlla ji ngay jaamu yàlla subhaanahu wa taala nee na gaayo ye yep bokku na ci li ñuy wax dañu na li bu neexulon yalla du am waaw <laughs> bu neexulon yalla yit duñu judd fekk ci suñuy bay da ngay gis comme ni da samp ay xëreemam samp ay kuuram ak i xeeram yaa ngi defar ben genre loolu ñu tudde xamb yaa ngi dégg di fa tour deret di fa tour ay soow soko ko li baxul la li dañu judd fekk ko fi ñoom maam ñoo ko fi bàyyi loolu rek la la mën a wax de mënu laa wax yàllaa ko digle mënu laa wax benn yorenti moo ko digle lenn la la man a wax ñoom maam ñoo ko fi baax allahu akbar yàlla subhanahu wa nee loolu la daan wax jamono jii tey it pareen da ngay gis konte ne nii boo nee ko tuubal jubal toppal yàlla subhanahu wa taala mu daan la moom li mu nekk yàlla subhanahu wa taala la neex wa qaala alladina ashraku law shaa allahu maa abadna min dunihi nahnu wala abauna wala xaramna min dunihi min shay nee nañ tamit ah, bu neexuloon yàlla yi ñu araamal du ñu ko araamal xam nga yéefari màkkee dañ daan araamal ay yenn ay yenn gàttek wala giléem am fu muy tollu ñu daan du koy araamal yaa ngi ni dootuñu ko war a teeg wala sàngam ak sàngam ya ñu araamaleen seen bopp wala weer sàngam ñu daal koy araamal ni duñ ci xeex te fekk yàlla yëgu tin noonu lañ ko mën a waxee lu ñu def yàlla xam na nag waaye fi may waxee mooy ñoom la ñuy def jàpp ni yàlla leen ko digal yàlla diglew ko waaw kere benn bis di ci jaamu yàlla araamal sàngam te araamul daganal sàngam te dafa araam yooyee yépp bokk na ci jikko yi ñi koy def soo leen waxee ñu daan ne la lii fi lañ ko fekk ñoom bàyyi ci lañ nekkoon ñoom maam ci lañ nekkoon mbokk yi loolu du lay loolu du lay yàlla subhanahu wa taala ba tey mu waxaat ak yonent bi sallallahu alayhi ko kadalika faala alladina min qablihim fahal ala rusuli illa akbar mbokk yi yàlla subhanahu wa taala ba tey moo ngi defalaat yonent bi saa sallam daan ne ko kadalika min qablihim ñi la jiitu woon yow muhammad ci ay yonent ba ñu woowee seeni xeet seeni xeet tontu gii la waa màkka tontu lañ tontu woon yonent yàlla saalix yent yàlla huut yent yàlla muusa yent yàlla nuux ba ñu ñëwee woo seeni xeet ak yent yàlla ibrahim ba ñu woowee seeni xeet seeni xeet xam nga nañ la leen wax ibrahima yow démb nga juddu lii nga ñu fekke nii suñuy bàyyi ci la nekkoon ak suñuy maam muusa dama nga toog yaa ngi dégg lii nga ñuy tere nii suñuy bàyyi ak suñuy maam ci la nekkoon yow saalix bul ñu jay ak ragal yàlla yow shuayb bu ñu jaay ak mën wax ya ngi dégg yow nuux wéroo li lañ daan wax yorenti yi te nag amuñu woon lu ñu tontu lu dul ni ci lañu fekk suñuy bay yorenti bet loolu lañ ko tontu yi ba qiyam prinsa nga wo nit ki ni ko li ngay def ni ak ni ak ni baxul wallahi amul lu mu tontu lu dul ni fi lañ ko fekk ñom mama ko fi te fekk ni yalla subhanahu wa taala daf ko téré kon mbokk yi affaire nekkul ci ay ñom mamak ak ñom bàyyi lu yalla aramal dafa aram lu yàlla subhanahu wa taala daganal loole dafa dagan mbokk yi nañu xam ni wax ji nga xamante ne nii moom la yéefari di wax yàgg nañ koo wax yàlla subhanahu wa taala nettale na ci alquranul karim ay aaya yu baree baree baree baree bare bari di ci wax ni yéefari amuñu luñ tontu lu dul ni dañoo fekk ñoom daal di ko fi teg ñu daal di koy jël loolee mooy li nga xamante ne nii la ñu wax law shaa arrahmaanu maa abadnaahum maa lahum bi dalika min ilm in hum illa yaxrusuun yàlla subhanahu wa taala ca suratu zuxruf ma ngay wax ni yéefari soo leen daan wax yii ngeen di jaamu nii baaxul bàyyi leen ko li ñuy tontu moom mooy ah dañoo fekk ñoom bàyyi ak ñoom maam doon ko def ñu koy def ba léegi moom lañ lay wax kon mbokk yi gis ngeen ni yàlla subhanahu wa taala yàgg naa tontu wala tontu yonent bi sallallahu wa sallam ah ñoom maama ko doon def rek ñu euh prince sax ma deg ñenn di jema tontu ñi wax lolu mais niñ leen di tonto sax baxut pare saa nga deg kenn boko waxe mun la ñom mama ko fi bayyi won bu ko defé nga daat ni ko lan motax dekkoo ci neegu ñax ba legi ñom mam ci neegu ñax lañ dekkoon lan motax bu tàggee am fas la jël top dekk yi di taggé legi da ngay woté comme que ñoom maam ñoo fi bàyyi woon xërëm yeeg yooyu kon toppal ñoom maam ci mbokk yi lii mbiru àdduna la yow ustaas bi wala yow mii weranteeg ñooñu boo leen di tontoo loolu yaa ngi leen di tontoo ci loo xamante ne nii mbiru àdduna la tontoo leen ci xam-xam bi maana lii ñuy jaamu mënuñu la ci indil dalil lañ la indil fenn fu yàlla subhanahu wa taala diglee mbaa tere ñu samp ay xërëm walla di tuur wala di di di di samp ay ay ndëpp wala ay xàmb wala ak yu ni mel loolu fan la ko yàlla subhanahu wa taala digle duñ la ko wax ba yowmal qiyam liñ lay wax dongu mooy lii nii maam yi ñoo ko fi bàyyi woon beneen bi li nga xamante ni lu jar a leeral la wax ji ñu wax ni ah, law shaa allahu maa abadna min dunihi min shay bu neexoon yàlla duñ ko bokkaaleen mbokk yi yàlla subhanahu wa taala bi mu ñu bindee def ñoo may ay xel waaw waaw halata ala al insani xiinun min ad-dahri lam yakun shay'an madkura inna xalaqna al insana min nutfatin amshajin nabtalih fa ja'alnahu samian basira inna hadaynahu sabila imma shakiran wa imma kafura yàlla subhanahu wa taala ne doomu aadama bi ma ko bindee ba pare dama koo may am xel bu muy xalaate dafa am mbir yoo xamante ne ni yow mënoo ci dara sa xol bii tëf tëfi gi muy def mënoo ci dara mënoo koo téye yàlla la subhanahu wa taala sam xel mii yoon wii boo fi jaaree ñu agressé la nangu sa portable boo moytul ma lan laa faat yoon wii boo fi jaaree am am na sécurité yoon wii ngay jaar yoonu mbaaxit kazalika noonu la yàlla subhaanahu wa taala ki pare pour baax kooku lay jàppale waaye ki nga xamante ne dafa pare pour bon kooku yàlla subhaanahu wa taala daf koy seetaan kon yow mi nga xamante ne nii yaa ngi naan lii ma nekk nii yàlla la neex déedéet yow la neex yow mii la neex ndax bu la neexul léegi bàyyi ko yaa ngi dégg kon lolu du lay yàlla subhanahu wa taala daa wax yent bi salaa salaam daa ni ko fa hal ala rusuli illa al balaagul mubiin macha allah ah waa xanaa du yonent yi moom jottali rek moom moo leen war waaw waaw yonent yi jottali rek moom moo leen war mbokk yi kenn du forcé kenn nag waaw bul forcé bul xeex bul xuloo yow jottali rek waaye tamit bul noppi bul ni ax ndax am na ñu koy yàq léegi tey jii suñu genre gii di waaraate nii dañuy yàq suñu bopp yi pare saa yaa gis kenn ku ñëw naan ah euh, Oustaz Mor noppalul waay yow adduna bi mënoo koo changé chaque jour maa ngi la gis fii ngay waaraate wala fee ngay wax nit ñi kenn mënu leen a soppi loolu bul ko déglu waxal waxal ba sangoo suuf waaw yow waxal rek bokk na ci critères yi ñu yàlla tagge mooy lan ya'muruna bil ma'ruf wa yanhawna mun kar bokk na ci li tax yàlla jël xeeru yonent bi teg ko ca kaw mooy day digle lu baax di tere lu bon te loolu ñi jàng ñoo ko def kon ñun képp kuy waaraate képp kuy jàngale na roy ci yonent yi yonent yi dañoo waaraate ak jàngal nit ñi ba sàngoo suuf kon mbokk yi lii la yàlla subhanahu wa taala wax mooy fa hal ala rusuli illa al balaagul biin kon boo nekkee ci ab dëkk nga gis ne dëkk bi kat ñi dañuy gëm ay xërëm di jaamu ay xërëm ak yu kenn xamul wala nekkuñu ci aw yoon nga ne ah garawul ñii de ci la dee dañ cee chronique déedéet yow del wax mën naa am yàlla subhanahu wa taala dina ci jubal kenn koo xamante ni dina ca bàyyi loolu yàlla mën na la cee fay àjjana kon mbokk yi yal nañu yàlla subhanahu wa taala dafal dégg ak topp jéggal ñu suñu bàkkaar ak suñuy rëcc rëcc insha allahu tabaraka wa taala ajuma ji di ñëw dina ñëw ak yéen ci mbaaxuk yàlla ak bëgg gu mu bëgg nit ñi daan leen yónnee ay yonent ngir leen di gindi ndax képp ku nekk ci lu neexul yàlla ba génn àdduna wal iyaadu billah fa ngay mu moom moo di safara laaya yooyu insha allahu rabbi ajuma ji di ñëw dinañ ñëw ak yéen ci leeral ko yenn yàlla defal dégg topp jéggal suñu bàkkaar jéggal suñu rëcc rëcc di jaajëfal ñu nekkoon ci xarala gi waaye tamit di jaajëfal la maison di Coran mi nga xamante ne nii moom moo leen di baaxee émission yi am solo yii di leen jàngal al karim di leen ko jàngatal tamit yàlla nañu yàlla defal dégg topp wa jazakumullahu xayran wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa localité Dans dawlen leen de Bachir House Bachir House di benn boutique d'ameublement boo xam day jox sa intérieur caractère Wow! waaw suñu meuble yëpp ña ko importé Égypte dinañ la jox tamit ay salon Louis XIV l'altera moderne triangle wala le Louis cocktail ah lol dina rafet ci salon wala ci chambre à coucher royal ah fu mu gënee moderne gën fa classique fofo baax salle à manger table à manger wala bok ay meuble d'appoint ay console royale 100 bois rouge rouge conçu minutieusement finition bala ligue liggéey yu finition bala ay moquette yu mucc ayib yoo xam ne ña Iran yi ko Égypte yi ko Turquie yu am grande finesse ak ay beauté yo xamni machallah yu taru lol. amnañu ay housse pour fauteuil am nañu ay matelas amnañu ay tableau décoratif yo xamni machallah amnañu tamit ay jardin yo xamni gazon la wala synthétique amnañu ay moquette pour jàkka ay moquette pour couloir ay matelas ak ay oreiller orthopédique xana ñoo jéxal wax ji les loo xam ne ameublement wala décoration intérieure ñëwal gaaw Nous si Bachir House ñu nekk sur la route de Yoff Borombe aéroport mel ni ku jëm fi nga xam ni en face Sagam sécurité wala nga 77 814 63 63 wala 77 815 96 96 wala 77 814 86 86 wala 33 820 67 57.